qu'est-ce xam naa ne takkante bi gars yaa koy commenté mais ay hmm. eh, su ma pare dinaa ko xool su may ñëwaat wax ci. Eh, regarde Zeyna ñoom dañu takkante. Zeyna mais oui oui j'ai vu. tekki naa bisu ak gémminam la ko tekkee axaari non xool ak sama xool commentaire parce que xam naa ne mi ngi toj Facebook <laughs> oui mais sinon euh, euh, Pape Cheikh nag détrôné Boubs dafay metti torop parce ah que déjà que les gens ils n'ont même pas encore vu la vidéo du bébé mais commencé nañ wax ne ñoom Boubs lañ faral ah ouais voilà alors que gisatuñu sa voilà te gisaguñu sax vidéo bi sinon am na yeneen vidéo yoo xamante ne ñu ngi ñu koy yónnee actuellement d'ici la fin de l'émission si c'est possible dinañ ko télécharge voilà mais pour le moment je vous propose la vidéo du bébé euh, bi nga xamante ne moom moo doon accélérer la cadence et juste après ñu teg Boops tout de suite accélère en accélère en accélère en accélère en accélère en accélère en accélère en accélère en accélère en accélère en accélère en accélère clair. Euh, bi mi ngi noonu c'est un bébé qui a deux ans te suñu seetloo ne euh, tànk bi. dafa uh-huh. damm au fait. Ah, dafa damm wala dafa voilà am na am na daal lu ko dal si tànk bi. Oh ba pare muy accélérer la cadence. ils n'ont rien écrit ci message bi ñu yónnee vidéo bi ah. si si mais sa maman dafa bëgg garder anonymat moo tax. Euh, boo mais il faut juste bi mooy vidéo numéro numéro un. nekk contre vidéo accélérer la cadence. annonce euh, euh, bi mu defoon au Grand Théâtre en attendant ñu am yeneen vidéo entre ñaar ñi déjà ku gagné on va continuer avec cette vidéo voilà donc filmez-vous ak n'importe quel appareil et envoyez-nous ça pourquoi pas ci page par message ngeen ñu koy yónnee automatiquement ñun dinañ ko télécharger après ñu jàllale ko ou par mail waaw ou par mail. n'est-ce pas. mais mail bi c'est un peu plus compliqué pour moi page bi moom may gën a. Euh, d'accord mail bi mail bi on laisse le soin à de s'occuper de ça. sinon foo déggee euh, Bijou Bonheur yow. <laughs> sinon page. <laughs> de Yeewu Leen bon j'attends les vidéos. dès qu'on reçoit des vidéos là-bas nga yónnee ñu ko. dinaa ko jàllale amul benn problème. n'est-ce pas. tout à l'heure voilà donc on vote soit pour Boubs. soit pour Boubs soit pour non euh, Fallou Dieng éliminé nañu ko ba pare. éliminé d'office. d'office d'office. Boubs éliminé na ko. ne d'office non c'est la ñu wax. sérieusement donc ce qui que bébé bi tey ci bi on élimine. on élimine Boups ok d'accord et on continue avec le bébé une autre vidéo. et la personne qui euh, ou deux semaines. Uh-huh. passera voilà. c'est ça alors à ñu ngi lay xaar avec d'autres vidéos. jaajëf. restez avec nous ak fu ngeen mën ci nekk même sur Facebook même ci réseaux sociaux yëpp ah mën ngeen réagir en temps réel def seen ay commentaires après nous on lit euh, pour vous accompagner woote leen itam ñu ngi leen di xaar enveloppe yaa ngi tege ku dugg di nga am euh, lu ñu lay cëralee ñetti numéro téléphone yoo xamante ni fu ngeen ñu làmb daj